jël kenaan rek su ko defee voilà ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu. tur bi ak sant bi. man Pape Tamsir laa tudd ñu ñu gën ma xam ci Pape Ciss. naka nga jàngatee situation bi nga xam ne kon moo am di ki démb fii si Mbour. situation bi comme ni ko suma frère yi waxee rek parce que vraiment ëpp na loxo parce que y' a 26 jours 27 jours suñuy doom suñuy collègues ak suñuy jarbaat dugg ci gaal durant ba bëgg la kenn xam fu ñu nekk di ñëw daal suñu kaw démb lii bi muy am sax moom mu nga ci euh, ci kaw. ma benn seet bu mu doon yóbbu fa la ñu ma woowee téléphone mais bi ma ñëwee si guddi gi ñëw naa renseigné ñëw ba xam li xew waaw parce que kuréel gi nag bon lay kuréel goo xam ni bon mag ñi ñoo ko instauré fii ci quartier bi toog ci jàkka ji waxtaanee ko fal bureau pour di saytu li xew ci tefes gi waaw fi lépp li xew ci tefes gi ci kuréel gi lañ koy waxtaanee moo tax lu xew rek duñu ma seetaan suñu booy dem nag te tëmbal ay gaal ay 4 gaal 5 gaal dem jéem a sécuriser ña fa nekk mais ku mënul ndox 5000 soo ma ragal si ndox mi. te taw tam mooyoo loolu problème bi am na ñu for nag mais am nañu disparaître affaire bi. kenn tegu leen bët noonu la ñu. kenn tegu bët xam naa dans 3 jours 4 jours xam naa nañ teer parce que boo yàqoo rek après da ngay génn ci kaw ndox mi waaw. waaw xam naa d'ici quelques jours moom ku taxawantu booru bàllin fële Tiripono di fekk gars teer foofu parce que bon xam nga la prépare fii ku fi gaañu rek bon fa fa nga fa fa ngay teer quoi waaw. bu nekk xam ne bu métti la tey laalaat doomu Mbuur parce que lu ni mel gëju fee tey lan ngay wax ci situation bi. situation bi dafa yàgg parce que bon boo xool daaw yaa am na 4 gaal ou 5 gaal yoo xam ne am na ñu ma ci xam ñoo xam ne dañ tëmb dem Grand Dessin 100 100 150 personnes 300 personnes 200 personnes mooy lii euh, agression la agression mooy nekk yow fii ci dëkk bi ma mën la fuuf ci wàllu liggéey bii ñu jékki-jékki nga am sens dugg ci gaal yi dem boo demee ci gaal dem un an deux ans nga ñëw changé situation changé nga defar defar kër mbir yàlla la nga defar kër sa sa sa train de vie changé ma ma nekk fii continuer ci la ma nekk rek loolu moo tax yenn booy yi di forcer di dem du leneen te état jëmu ci dara moo état yi fi joge yi fi ñi fi nekk jëmuñu dara ci géej gi xam nga ñoo xam ne agro de pêche gars yi yuuxu Sénégal ni ñuy ñuy ni ñuy waxee moo doy waar te daa ngay wax ba ñu jox la bu ñu joxee nga fàtte ñooñu géej gi xam nga li fi am dee na waar da ngay xëy gaal gu boo def reportage tefes gi plus de 300 euh, gaal la ñuy taxaw gaal gu nekk day yëpp 150 personnes ku ci nekk borom kër nga responsable nga doit nga soit nga am jabar soit nga ñàkk am jabar mais boo xëyee da ngay jox da ngay da ngay contribuer ci kër gi nga dëkk mais nga xëy dem ñëw amoo di dem di ñëw di dem di ñëw capitaine bi sax day dem ba ruus di xool sax ay morom parce que amul lu leen jox léegi état bi jéemu ci dara te industrie bi amul fenn Sénégal li muy réglé ci emploi te pêche bi amul fenn ci Sénégal amul ci tourisme amul ci agriculture amul amul ci dara te dem état yi fi nekk yëpp dañ koy dañ koy nasaxal ñu naan géej gi géej gi sàmmuñu géej gi bu ñu sàmmoon géej gi xale bi di toog ñun bi ñu nekk xale kenn xaatul génn fi parce que da nga ne boo duggee ci géej gi am soo ñëwee am loo terloo am loo dimbalay nit ñu lebu loo lañ xam waaw dem liggéey ñëw teral teral doomu aadama yi mais bu ñu demee dem ba benn moment boo xam ne loolu mënatul am léegi itam xale yi mangi di dem ak phénomène bi xam nga ak euh, gis nga Sénégal nu mu nu mu nu mu mel métti na moo tax xale yu jeunes yi dem waaw ak façon bi ñu demee mais neexul mais nga euh, comment dire chaleur bi ñëw taxaw fii saa xam nañu ma Sénégal. après la mort après la mort ñu ñëw fi mu ne nii dafay def deux jours trois jours après disparairaat léegi am na ñuy préparé fi nii pour dem ah fi mu nii nii am na ñoo xam ne tey tey ku ñu gisoon gaal dugg ci xool ñu ñu dee de seen yoon naw ci xam lañu xool sama ëllëg sama ëllëg la ñuy xool man sama rakk dem na suma xarit dem na maa ko mënoon fii mu dem ñëw réaliser ma toog bon kon ma toog nii rek da ngay xëy 1000 francs le sama frère bi rek da nga juddu à bas âge ñu yar la bi ñu la war a yare jàng la métier di la ndekki di la yor ba bi jaaw te doo mën dara ci kër gi loolu de moo tax xale yi di manqué parce que da ngay xëy doo ko mën a jàkkaarloo sa sa sa sa parent pour loo ko jox métti na te ñenn ñi dem di di réglé am na suñu booy yoo xam ne daaw lañ dem bi ñu ñëwee rek vacances ren jël nañ ay kër ñuy de tey nañu trois terrain te bëggee ne fii mënoo xaj mënoo fas xañ ak moromam kon nag état Sénégal nañu jàppale xale yi na jàppale jeunes yi xam nga ñu naan mbay mais dama ne Sénégal boo jigéen fii dem Touba li nga gis ci terre da nga naan déedéet jóge fii dem Tamba léegi ci suuf nga xam te mais dañ exploité suuf si dañ ko bàyyi noonu rek ku si nekk sa bopp la sa bopp la ñor ni nga waxoo a falu ba falee fàtt Sénégalais yi moo war lii am état yi moo war a jóg sàmm nit ñi état moo war a jóg jàppale jeunes yi créer ay industrie ay di ci liggéey di am salaire fii boo toogee fii sa nga gis sa papa sa yaay di am loolu su loo sutur la foo foo jëm mais ñi dem teranga la ñu di mais boo toogee fi am teranga foo jëm ah te boo fi naagee fii boo dem Europe doo liggéey de parce que 4 heures du matin ngay sa bopp mais tax moo tax xale yi ay jàmbar lañu ne leen na la état bi jàppale nit ñi jàppale leen ñu mën a toog liggéey loolu mooy affaire nga xam ne ñoom ñooy tëgg gaal yi ñu waxaat ak ñoom parce que lu si ëpp tey responsabilité bi mën nañu wax ne tey ñoom am nañ ci part de responsabilité mhm. tey euh, bu fekkee da ngaa gaal jël ay nit yu bëri yëpp leen si gaal gi di leen yóbbu ba li am am loolu aussi beneen phénomène bu ñu war a gëstu la tey war ñu teg ay mesures ngir mën si indi ay daan mais loolu sax yow daan yooyu état mi ngi franc la ñu jàppale ci client jàppale yóbbu la tëj mais 6 mois nangam nangam ñu bàyyiwaat la mais dama li drogue la xaalisu xaalisu clandestin drogue la. dafa am ay commerce wala. waaw commerce moo yi mooy da ngay encaissé ay nit 300000 400000 gaaw bare mais doo jënd gaal gu baax doo jënd ay machine bu baax surtout capitaine moo raaf capitaine jeex na depuis 2006 la fa la bëkk instauré fii ci la ma xam mais mbëkk yàgg na am jóg côté Nouadhibou côté Maroc ñu naan dem di grande mais boobu jeunes sénégalais faa la ñu faa la ñu benn dëkk parce que li ñuy bëgg ñu ngay am fi boo demee géej ni nga am boo bayee di nga am soo yëngatoo ci tourisme ni nga am mais loolu yëpp dafa dafa dafa nax saay man def naa benn vidéo 2016 boobu xam fu ma nekk dama tëma maare sama benn gaalu frère boobu maa ngi ci diggante Moroboya ak euh, ak euh, ak Freetown ci frontière boobu ma taal GPS bi nii mu doon 800 863 kilomètres léegi xool doomu Mbour doomu Sénégal jóge fii ñaata frontière nga romb ma nga frontière u Gambie romb frontière Bissau romb frontière Conakry romb xaw jaa ngi ci frontière Morobia pour ut jën boo teral sa waa kër léegi léegi ana état vidéo bi ma ko lancé ci Facebook bi booy nekk Europe dañ doon yuuxu ne grand yow ñu mel ni yow ñoo war a bari Sénégal mais loolu amul état yi de xoolal les les hommes étatiques dégg nañ ko mais duñ leen toppatoo duñ leen lijjanti mu état yi fi jiitu ak yii yëpp ñoo yem nañ wax ba falo mais buñ falo dañuy fàtte askan loolu moo am Sénégal loolu rek moo fi am mais pêche bi bu ñu ko sàmmoon a sàmmi les zones yoo xam ne ku mel ne nga parqué ko ah dans un an deux ans jën kenn doon xoolal jën bi lay teer fii mais san yoon new ci mool gi tamit loolu neex nañu liggéey mool gi les acteurs ñi dugg ci géej gi neex nañu li wax neex nañu liggéey yow naa am rek xooloo lii da yàq xool du yàq loolu nag loolu problème Sénégal mais état ñoom lañ jox réew mi nañu jóg jàpp ne lii kat bu ko defee réew mi mën a mën a mën a dox. waaw ah, loolu rek mooy problème bi. parents aussi euh, ndax jotul si gaal di dem. waaw parents yi tam loolu lépp frère bi wax rek am na parents yoo xam ne duñu sax nga euh, xale biir lab fii tout récemment démb kooku démb seetaan na kankuran suba gi dem na dayu kankuran si ngoon gi quatre heures mu dugg si gaal gi des si gi kooku yaayam maamam fi ma nekkoon si ceeb bi ma ma nekkoon fa lañ owee maamam ji maa ko wàcc si escalier yi muy yuuxu foofu ñu dugal ci oto mu ñëw kon kon kook yëgul yaay ji mu ngi sëy fale ñu oo yaay mu ñëw ba bi mu jógee foofu dama ñëw rejoindre leen mais dama ñëw fekk ñu ne en deuil xamuñu seen seen seen seen sët fu mu nekk bari na ñoo xam ne seen seen i doom ñooy teggi naat ci jox leen ñu dem parce que ñun ñoo def bari na ñoo xam ne yow li li booy bi wax 60 60 pour cent kenn nga ne waa kii fu mu ne benn copain ne la ah dugg si gaal nangam mbaa mu teer oote téléphone yëg xamal ne la maa ngi Espagne kenn duñu yëg dara même ñi tëgg gaal tamit bari na ay turian comme li ma la waxee rek bari na ñoo xam ne commencé nañ ci dañu ut xaalis xooluñu ku xooluñu gaal gu baax ñu capitaine yu baax ñu dara xoolal ñoom encaissé suñu xaalis rek daw dem ñooñu la ñu ñooñu la war a wër tegal ay daal parce que tamit nga jël doomu jàmbur encaissé sa xaalisam yóbbuwoo ko turiande maamu de si géej loolu fu maam ba kañ na ci na ci na ci nit ñi jóg yow bu fekkee da nga jël ay nit xam nga am na sa àq nga récupérer xaalis yow nga taxaw jël jël ay matuwaay ut gaal gu baax ut machine yu baax ut ay capitaine yu baax yàlla àgg yi si yàlla la bokk. boo mu dem sa nga teer Maroc mbaa nga teer ne duñ def loolu fii ngay jënd gaal goo xam ñëpp dañu d'accord ne gaal gi baaxul jënd ay machines nga xaalis nit moo fi am dañu xaalis ñu si bëri na yenn gaal yooyu sax moom mooy def chavirement si biir géej. waaw loolu yooyu gaal la waaw parce que fii zone bi géej gi dafa géej gi jigéen la mais au fur et à mesure ngay dem côté Maroc zone bële foofu dafa bari ay vagues yoo xam te am ay ngelaw yoo xam ne boo amul gaal gu baax amoo moo ñu dëgër amoo carburant bu doy amoo machine bu baax doo dem da nga échec gaal gi day toj bari na gaal yoo xam dañu disparaître mais dañuy toj loo xam ne moom mënuñ mënuñ ko résister gaal gi day toj ñëpp disparaître day ci géej waaw. gaal gu am 26 26 jours 28 jours teerlu ba léegi fi mu ne boo duggee si kër gi xool amul waxtaan ñëpp nga toog ku ku nekk sa rox toog di waaw ah, looy wax kër goo xam ne 26 jours 28 jours. say doom dugg ci gaal ga mbaa say sët ñu bëri la majorité parti fi lañ dëkk mais booy xool nag yow da ngay da dara yow da ngay tëgg gaal yoo dara benn un franc da ko yor client yi ñëw 400000 300000 500000 loolu dafay gaaw léegi nga récupéré loolu la ngay récupéré nga la ba ko mën la bàyyi daw jënd gaal gu baax parce que dañ ñu jëndal gaal gu baax ut capitaine yu yu qualifié ut ay ut essence bu doy comprendre léegi bu gaal gi mu dina mën am fu mu teer ci loolu yow dañ la jox mais li nga jël mais gaaw a xool pour mën a régler xaalis bu bëri wut kër mbaa nga changer sa train de vie tey si xaalisu jàmbur boo xam ne dañ ko contribuer xaw fu ñu ko jëlee moo yu bëri nga gis ay musiba musiba yi day bëri da ngay si xam ne day tëdd gaal xoolal bu jógee si gaal nga xool day tëdd feebar ba dee parce que xamoo yow ni ma def am sama xaalis xamoo dama jaay kër xamoo dama jaay nag xamoo dama nangam nangam te doomu yóbbu ah doomu yóbbu de da ngay daw sama xaalis man ma loolu loolu ne sama xool man def la may def yow doo jog ba keroog nga dee gis nga fi te yooyu dañ ko moytu nga tëgg gaal dafa dafa doon risque boo xam kenn xamul la phénomène bi daal kenn xamul la waaw après la mort nañ ko bàyyi mbëkk jot na mais nañ ñëw xool tey dama gis ne état bu jóg bu jógoon pour li arrêté dina arrêté fa ñu jëm tamit les îles de Canaries yi bu espagnol bëggoon mu arrêté parce que am nañ ay moyens te Europe espagnol ñoo si gën moole mais ñoo bëgg xale yi ñëw parce que fi mu ne xale yi ñu ngay dundal seen seen ressource seen tool yi doon yàqu xale yaa ngi cooc dem mu mu ngi dundaat seen bato yi yee woon yaa ngi dem gaa yi demaat géej parce que seen ndaw yooyu ñoom lañ soxla te ñun nag dañ am ay ndaw ba pare état yi toppatoo ñu ndaw yi loolooy problème bi Sénégal lañ cee seen i ndaw uta leen ay liggéey ñu toog liggéey voilà mais nga xëy di liggéey gis sa papa sa yaay gis sa frère di am la suturloo neex na lu foo jëm fa ne nga fa uti rek mais ñi fi ne nañ fexe bi teraanga am fi am déet ah loolu la ok jërëjëf. voilà mën nga ñëwaat rek donc euh, pour continuer li xam ne